yaa awa jéey présentatrice télévision Futur Média yaa awa jéey nag tey dinaa ñëw wax leen jaar jaaram fan la jaar ba ak si télévision Futur Média Awa Dieye nag dafa am lu raar maanaam sénégalais yëpp ñoo ko nangu lii di taaram ak lii di am classe am bokk na ci animatrice yu ëpp classe fii ni ci diwaanu Sénégal yaa Awa Dieye top modèle la woon maanaam 2005 da doon def lii nga xam moom ay publicité lu ci mel ni Darling ak ay Tigo ak yeneen publicité yu bëri doon am yaa Awa Dieye moo ko doon def temps yooyu Sénégal 2006 nag Sénégal première dauphine la nekk Miss Sénégal première dauphine bëri ak ay clip vidéo yu bëree bëri jamono joobu képp clip clip ya yaa awa jéey ngay woo maanaam 2005 2006 2007 jàpp 2008 waaye nag ñu jëm ci côté ay 2012 2013 yaa Awa Dieye ci la ñëwee nag Sen TV daal fa nekk présentatrice waaw bi mu nekkee présentatrice Sen TV dafa ñëw doon participer benn émission doon wax seen xéewal seen xéewal nag ndaanaan yu bëri jaar noonu ci lu ci mel ni Fama Thioune Pape Cheikh Diallo Aba No Stress Alima Ndione ak kii nga xam mooy Fatima Dione di jabar ci Bougane seen boobu nag di Sen TV fi yaa Awa dooree lii nga xam ne nag mooy présentatrice am ci wàllum télévision waaye jamono ji dem yaa Awa di dem Aba ci la ñëwee Sen TV Yaa Awa di bokk moom benn émission bu ñuy wax yendu leen yendu leen nag mën nañu wax Yaa Awa si la ko ñëpp si la ñëpp xamee kan mooy dëgg-dëgg Yaa Awa ndax boobu dafa nekkoon benn xale bu jigéen bu rafet bu daa présenté ci wàllum télévision Awa Dieye di dem jamono di neex ñu koy jox yeneen émission yu bëri foofu nañ sa Sen TV sénégalais yi commencé koo xam dem ba 2015 Yaa Awa Dieye jóge fii nii di Sen TV Yaa Awa Dieye li ko jëlee Sen TV deret seen diggante ñoom ñaar ci la yaa awa jeey Bijou Ngoné ak Aïcha demoon fi nga xam moom mooy TFM caméra bi jël si ñëwee ci leen buggaan dàqee ñoom ñett bi leen buggaan dàqee 2015 leen demee fii nga xam 2STV leen attiriroon ñoom ñett waaye yaa awa jeey waa 2 joxoon ko émission bii nga xam ne nag moom mooy sa matin c'est à nous émission matinale woon waa 2S ko gën a wóolu jox ko et nous prêté et religion 24 ak sax moom mii yaa xam ne moom mooy 2STV yi dex muy gën a raar 2STV yi mujj nag si ko séenee fii nga xam mooy télévision Futurs Médias bi mu ñëwee TFM nag bettul ñu bëri ndax foo seen abaa fi seen kii nga xam ne nag moom mooy yaa ndax ñoom ñaar ay mag ak rakkalante sénégalais xam nañ ko yaa Awa ñëw TFM TFM jëkk jox émission bii di ak lii di célébrité ak religion mu def ko TFM ci la ko stv porté plainte mu changé tur def ko a présentatrice woon seen boobu noonu moom yaa awa jëy nag mu bokk ci animatrice vedette foofu noonu ca télévision Futurs Médias lu ko mooy yaroom ak am classe am ak salaire bi mu nekk bi yaa awa jëy Animatriz.